ala alihi ahli l ihsan wa radiyallahu an baqiyati salaf wa xudwati alxalaf faxri diini walwatan mawlana al abdilxadim ahmad bni muhammad bni habibillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk julli di bokki taalibe yi ci ndigalu kilifa gu tedd gi di Sëriñ Tuubaa cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñu yëkkati kàddu di ko ubbil rek ndax seen digg ak moom li ma ko doy doy doyuma ko ci seen seen diggante ndax xam ngeen ne ba ngeen dalee ba nëgë lépp moo ko ànd ak yéen kon li sëriñ bi di wax wa fil qalbi min ridwani fii ma ukinnuhu daninan bihi inna sudura quburu loolu mooy li ko dal ci seen digg yéen lim yéene bëgg ko wax kenn doyu ko ci bu ñëpp maasoon ci di ko ko waxalit kàddum rek moo ko mën a mottali kon dañ koy ubbi rek nag lu lañ ci wax ndax day jataayu ndam di jataayu ndamu Serigne Touba di jataayu ndamu Serigne bi di wane it li Serigne Touba waxoon wal yow ma yoon sii nii bi yow mi yow bi xat sama tey ju ne gàcceel na sama démb kon loolu dane fàng ba jërut woon ko amati bët na ko suñu kilifa gu baax nga Cheikh Abdoul Ahad ma ki waxoon kon ci ndigalu sëriñ bi ñuy ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax ñaan gi dafa bari lu ko waral ndax taxawaayam dafa matale sëkk ni ko sëriñ su waxee léegi ndax bi fi nekkee ay kilifaam jiitu na sax njabootuk Serigne Touba gi waaye ba mu fi nekkee kilifaam nga Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbakkeem Cheikh Mouhamadou Bachir dégg naa ci kàddoom mu wax ne dama ko wax ne ko saa soo ma séenee may ñëw rek xamal ne lem naa sama xel denc ba kër moo fi jóge mës amu bëgg mës amu bañ noonee la ànd ak moom ba làq ngërëmam làq ngërëmi kilifaam yëpp. mboolem jabootug Serigne Touba gi kenn ku ci ne ñim jamonoonteel ku ci ne seq naa ak yow loo xam ne loolu doy na sëkk firnde ci loo xam ne ab joxañ la joxañ ba taxawaayu tayam bii wane na ne kenn ñoom seenu gis dafa neexoon lañ gisoon mooy fi mu toll tey dégg naa ci kàddoom mu wax ne am na ko ko mosa a seer kàddu cant ci Cheikh du Bachir ba mu waxee ba jeexal sëriñ bi da ko ne rikki de lii mu wax bu fekkee mi ngi ci yow na nga fexe ba sax ca bu nekkul ci yow tam na nga fexe ba nekk ci yow loolu nag yàlla def na ko ci moom kon day ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax njabootu sëriñ Tuubaa gi doy loo nañ ko doy goo xam ne kenn xamul fu mu yem Cheikh Abdoul Ahad Mbacké na lu ko daa doxloo ak di ko ko yónni te booba xam ngeen ne ñi ko jiitu ci yoon yu bari na waaye pëstéef ma ak dogo moo ko may Cheikh Abdul Xaadir gane jëne ko ba tàyyi bu ma saan siyaar si siñ Saaliw ci ngan yi mu daa defee moom sax bu agsee moom lañ njëkk laaj ngir jëli ko kon loolu seen diggam moom a tax diggam ak Sëriñ Saaliw nag àdduna sépp xam nañ ko ndax Sëriñ Saaliw seddoon na ko ci ci moom cër boo xam ne kenn xamul fu yom ndax lu ko mas a ñor wala lu ko mas a itteel moom la ci jiital bi mu demee ba nga xam ne dem na ba Cheikh Mouhamadou Mourtada bàyyi ko fii itam mu xamal ko ne sa jëmu jëma ci doy kon ñoom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ci suñ bàkk Madina rek ci jëmmam ji lañ koy xoolaat suñ bàkk Madina dafa Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne Serigne Touba de sëddi képp ku ci jub te tegu coon mu dugale ci suñ biir daane suñ bàkk Madina bi luñ ko ëppale waaye moom mii nag àgg na ci xaal boobu tey amul dara loo xam ne ñi ngi ko daa xalaat ci doomi Serigne Touba yi ci pëstéef ak yaakaar te buñ xoolee jëmmum ji duñ ko gis ci moom diggam ak Serigne Souhaïbou ñëpp xam nañ ko ba ñu ne ci biir daara ja daara ñëw xam nañ seen diggante àdduna sépp xam nañ ko soxna May ñëpp xam nañ ne laytul xadri gii moom la defoon jëwriñ ji ak mbiram yëpp kon moom ngërëm li dafa yàgg te muy loo ne dafa dëggu ci moom. yàlla binde ko ni dund lu sëñ Tuubaa bëgg lu sëñ Tuubaa tallu lu sëñ Tuubaa damay wax ne Cheikh Mouhamadou taxaa ku ko xam ku ne xam cër ba mu àgg xam fa mu àgg am mënuñu wax koo xam nag waaye ku ko xam ku ne danga xam ne itteem génnut ibaadaat yi jaamu yàlla yi muy def li mu toggoo ci njàngum alxuraan ak xasida li mu toggoo ci ibaadaat yi waaye yàqalu ko ak jëflanteem diggam ak nit ñi daanaka day na bis bi dara waru ci dara warutoon a xaj ci ni bi dunde waaye lépp yéene pësef ak bëgg sagal Sëriñ Tuubaa rek mooy tax loolu mu di ko def kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyi loolu mu yàgg te ànd ko wér doon na sëkk taxawu ñaari doomu Sëriñ Tuubaa loolu moo ko njëkk am ci setu Sëriñ Tuubaa kon tawfeex la ju ko Sëriñ Tuubaa defal ginnaaw bi fi njabootu Serigne tubaa gi jeexee ci kaw suuf Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw ku ne xam na fa mu toll ci at cër bi ko yoon wu jox cër bi ko àdduna sépp jox waaye ba nëgë ni gisaataguñ ku mel ne moom mu jug taxaw laxasaay boole ko juróom-ñaar fukki million ak ak lu tegal def ko addi Cheikh Mouhamadou Lamine baar ngir Serigne Touba loolee itam ba mu koy wax dafa dajale njabootu Serigne Touba gépp waxoon ne lam la ma ci gën a jund mënoon naa koo jëf te kenn du ko yëg waaye dama leen di jàngal aw yoon ñëpp xam ne nii moo nii ware noonu la ware ñëpp loolee nag dund na ko moom diggam ak Cheikh Sidi Moussar noonu la ànd ñoom mës amu bëgg mës amu bañ kenn mësumaa yónni ci moom ma dem xam xalaatam ba ni mu doon Sëriñ Tuubaa kon moom jataay bii tey bu fekkoon tamit luy jaay la dama damaa wax ne da jënd Serigne Touba lu waay am dala ko dala ko gën a baaxee la ko waaye bu doon bu doonoon lu ñuy lu jaay dama ne da jënd te Serigne Abdou Lahad waxoon na ne yoon wi yii rekk fi ne liñ la dénk ak liñ la may ak liñ la jaay nee na liñ la dénk waxtu wu neexee borom mu jëlaat ko li liñ la may mu neexee kala ko mu jëlaat ko li nga jënd nag ka la ko jaay taneetu la ci taneetu la ci njëgg kon sëriñ bi lii mu am ci lislaam ji waxuma yoonu murit waaye am ko ci biir yoonu murit ndax moom day wax ne fi ma ne ci sëriñ Tuubaa ak ni muy doxee ci sëriñ Tuubaa mboolem ñi bokkal sëriñ Tuubaa ni ma ko yéenee sama bopp ni laa leen ko yéenee waaye suñ borom delloo na ko ko nag ndax njabootu sëriñ Tuubaa gépp maase nañ ci yéene ko jataay bi yéene ko mu yàgg lu mu fi gën a yàgg rek xeeb nañ ko ngir xam li muy jëriñ ci yoon wi ndax li ci li ci li ci gën a tuuti mooy foo gis gisee jëmmam rek saxe dellu ci yàlla foo gisee jëmmam saxe dem ci Tuubaa loolu doy na ko sëkkub liggéey leneen li ci des lépp mën nañ ko muñ waaye lool li nga mooy li nga xam ne kenn mënu koo ñàkk danaa ci tànn jenn seen seere ndax njëwaru Sëriñ Tuubaa koo ci wétal seere seere sami seere ci sëriñ bi am na ci loo xam ne mu su koo yëkkati ci rajo di ko wax ndax loolu boo ko waxee sax day nuru dara waaye sëriñ Cheikh Mbàkkim sëriñ Saliou wax na ne wa yawma aslama jibrilul aminu ata bi isni man huwa fawqal kulli qaharu mualliman anna islaamal fata umarin busra li ahli sama wal kulli yaxtaaru nee mooy xelaaf ak Cheikh Mahmoud Moustapha Cheikh Mahmoud Mountakha te moom suñu Cheikh kon xam na li fi mu toll ak ni ko yàlla bindee du wax lu mu gëmut kon loolu doon na sëkk seera te njabootu Serigne Touba gépp gi mu ko seqal ñëpp foofu lañ maase ne ci moom kon yàlla na fi yàgg te ànd ak wér li ci dolli ko rek mooy bisum ndam la ndax aaya bi ma tari euh, Serigne Atou Diagne day jàmbaar lool àndoon ak Serigne bi Serigne bi xam pa si xamu dogom moo tax ma tari minal mu'minina rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi waaye loolu itam day wane ne mbirum Serigne Touba kenn dooru ci dara. lépp moo ko yorul boppam ndax ko xalaatoon ne moom mi moom moom di suñu aatu mën na fa jóge moo tudd weer yii ngeen jëfaat fi jëf ji ngeen fi jëf te dara taxawul lépp di gën a yokk lépp di gën a dox day war ne kon jàmbaar amut ñëpp suñu tubaab leen dimbale suñu buxaat daana ko wax jàmbaar amul kun dimbale am waaye kon yéen da ngeen dimbalu suñu tubaab sëriñ bi nag lim leen daa seer dadaa wax ne dadaa wax ne képp koo xam ne mi ngi xalaat ci yéen dara daa jàpp ne Sëñ dara jomb ko te Sëñ Tuubaa dara jomb ko kon yéen wanewaat ngeen it ndamul Sëñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne tubaab yi de damay njëkkante ñoom koo xam ne njëkk nañ ma ci moom ñàkk naa ko bu faw waaye koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw yéen ñii nag xam ngeen ne Sëriñ Tuubaa bi biñ ko yóbbu njaareem raamoo ma siri ilaa jurbel la daal lasasi law aayeenoo sirra maa fi sayri maa raamoo ñëpp xam na ne la taxoon tubaab yi indi ko fi ci seeni natt mooy jàppoon ne fii ak njaarim ci ay taax bu ñu ko fa indee ña sëñ Tuubaa xasoon defar kenn moo tuddee na soppi waaye ñii judduwaat ginnaaw bi ñëpp cinéma yi ak marché yi ak mbooloo mi daal leen fab bi yéen ñii nag yenn weddil sëñ Tuubaa tuumam wane ngeen ne sëñ Tuubaa lépp lu mu bëgg def ci nit te dara mënta dox digg diggam ak loolu da ngeen a layan ngeen sëñ Tuubaa wa wane ngeen ndamul sëñ Tuubaa kon nag na ngeen sant yàlla bu baax te xam ne nii ngeen di doxe itam sëñ Tuubaa leen ko digaloon sëñ Yuusu nag yow danga nga am tawféex ndax tawféex di mooy daayira bi daa doxoon ñu it ànd ci seen biir di tànn njiit ba agsi si suñu aatu mu def ci jéegu rëy rëy ci taxawaay bu mat sëkk boo xam ne dund naa ko mu xam ko. yow nag danga am am tawféex ndax yow sëñ bee la tànnal boppam te ba mu lay tànnal boppam itam diisoo ci laaju laaju ci waxtaanu ci daa noppi rek yëkkati boppam kàddu wax ne fu ma gisee aato sama xel dem ci yuusu fu ma gisee yuutu sama sama xel dem ci aato kon sëñ bi xamoon na dayre bi dara luy soppi ko mu ci loolu nag wane waa ni ko tey jii ndax bi ngeen mujjee siyaare ñaar téeméeri million ngeen amoon tey siyaare bii bi ngeen koy def bi nga koy wax Serigne Moussa. di ko ca laajloo sëñ bi ndigal boo li des ci koor gi mootu fukki fan ak juróom sëriñ bi tànnal la bis diggante mootu fukki fan juróom ngeen dajale ci ñett téeméeri million yu tegal li mu jëy te xam ngeen jëy li muy tegtale ci mbirum Sëriñ tubaa kon yéen am ngeen tawfeex bu noppi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nag moo leen taxawaloon tegoon leen ci yoon waxoon leen ne leen fu Sëriñ Tuubaa xëye na ngeen fa gonte fu mu gonte na ngeen fa xëye loolu nag wàccu leen ko waxoon waxoon na leen na leen itam yéen ngi jëm ci dëkk boo xam ne yéen a ko dëgg man sax dara mun leen te fa àgg te bu ngeen fa àggee képp ku ngeen ko ànduloo dana leen ci ñee loolu yàlla defal na ko tey ndax mel na ne ñi ëpp ci nit ñi gind ko nañ ci yéen ba ca des it waxoon waxoon na leen ni leen lépp lu ngeen dajeet ci seen biir te kenn raxu leen na ngeen xam ne wax yu jóge Sëñ Tuubaa la loolu doon na sëg kon nag sant leen yàlla bu baax. te xam ne Sëriñ Tuubaa liggéeyal ko képp ku mu defal tawféex ba nga dëddu àdduna bàyyi lépp di ko liggéeyal na nga xam ne am nga defaruk àdduna ak alaaxira ndax moo ñaanoon suñ boom ne ko waq di xawaay jëlli si na daamu fii xidmati wahab lahum maaraamu ma nettali ci rek lu gàtt ndax dafa nekk ca njaareem ca ca gànnaar ca déwén sali sëriñ bi ñibbisi ne nañ ma wool fere yépp ñu daje ñu war ko fere yëpp ñu daje mu wax suñu àlliyu seen ak àlliyu wool ma fere yi ñu woo ñëpp ñu daje sëriñ bi ne ne àlliyu limal ma ci yéen yi am Sénégal loolu solution bi bu ma ko daan nettali suñu àlliyu say di gum lim rek sëriñ bi ne ko du googa ba mu jeexal mu ne ko xam ngeen lu ma ci jubloo mooy demaa bëgg ngeen xam ne lépp loo xam ne digg naa leen ko fii tey ni ngeen di gisee lii ma leen di bëgg di ngeen ko gisee daane suñ boroom xamal na ma ne balaa na ngeen si déwén danañu fekkee Sénégal ci ak ci yéen li ma ci jublu nag mooy bëgg ngeen xam ne lépp lu may dig ci àdduna bi bu ëllëgee deen ko gis fii ma leen ko waxee nag ba kenn ngeen ba keroog ngeen fi jógee kenn du faatu ci kàttanu yàlla fekk am na ci menn magum taalibe mu doon xaaru ñëpp jàpp ne day faatu waaye dafa wéraat ba sëriñ bi Sénégal ci ci yéen Jolof mu door a faatu kon loolu mooy mbiru Sëñ Tuubaa lii ngeen fi indi muy addiyee nag rëy na lool waaye Sëñ Tuubaa dara rëy ci ndax nekk na ca gànnaar am kenn ci bokki taalibe ci ci kilifa yu mag yi wax ne dafa bëgg dajale addiye dafa bëgg dajale Sëñ Tuubaa addiye ju ko kenn mës a jox daal di mbay mbay mu yaatu dajale ay taalibeem dajale lam amoon lépp jaay ko mu nekk juróom-ñetti junni mu ànd ak mbooloom ñëw fekk ci sëriñ bi ci ci ci ci gànnaar bi mu agsee nuyoo sëriñ bi laa ko doon si tànk mu ko dama laa siyaare si woon bëggoon laa jox addiya addiya ji nag mi ngi toll ci juróom-ñetti junni sëriñ bi ne cel waxu ko dara dugg ci biir na sotti mu ginnaat daal ne anal anal ndaw yi Ahmadu Ndumbe mooy sëñ Mandumbe fekk sëñ Mandumbe yónnee na fa ndaw ba ndaw la agsee sëñ bi ne ko anal doon say tànk mu ne ko sëñ ma Ndumbe Ahmadu Ndumbe moo yónni mu ne ko lu mu la yónni mu ne ko àddiya mu ne ko lu mu sol mu a ko xaw ma ko ka andi woon loola sëñ ne ko àndal ak moom ci biir kees ya ñenn ko ba xam ñaata la bañ demee wàññi ko ñaar fukki junni kon sëñ tontu na ko kon nañ xam ne sëñ lépp lu ko waaye di defal rek yéeg ne moo la ko lañ ko mën a fayee ndax am na koo xam ne gàmm dafa jot sëriñ Tuubaa wax ne kooku wax ne. dafa bëgg a teral gani gani Sëriñ Tuubaa delloo ko ku njukkal ca njaarim rey ay nag yu baree bari ak i xar ak lam man lépp séddale pension ba mu fees lépp mu jëf ko ay ñam ba gàmmu gi jeexee mu ñëw ci sëriñ bi leeral ko lim jëf sëriñ bi ne ko analoo ci jubloonu mu ne ko xanaa del delloo la njukkal sëriñ bi ne ko mënu leen ko kon yàq nga si jëf ndax la la nga man ba tax nga def ko maa tax nga man ko kon kon kon lay cant gi mooy ngeen yëg ne maa leen ko defal kon nag foofu lañuy jeexale di ñaan sëñ bi yàgg fi lool te ànd ak wér te Sëñ Tuubaa tàbbal ñu ci lam boo xoo ne add xaltu nafsi wa jamii ahli fi jey bi afdali wara bi fadli wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bala maa jeexal nag sëriñ bi xam ngeen ne bi muy ñëw ànd nag lenn ci ay bokkam ndax mu ni solim ñëpp ndax bu sëriñ bi xasee toog yoonu mu murit baaxawut noonu waaye sëriñ Isaaxa Mbàkkeem Cheikh Mouhamadou Bachir mi ngi toog sëriñ Abdou Samad Mbàkkeem sëriñ Chouaïb ngi toog sëriñ Moustapha Abdoul Akram mi ngi toog ak yenn mboolem cheikh yi sëriñ Tuubaa ak lenn ci bokk yi ñu bari ñu ngi fi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaanal waa daayira bu salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.